ci Abdoulaye Diop euh, jërëjëf euh, jërë ngeen jëf auditeurs yi nga xam ni ñuy diglu RFM 94.0 la radio de toute l'actualité, la radio leader yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ma ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye euh, war ci ànd ak Mamadou Ndoye Bane Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo siyaar gi bu baax Ababacar maa ngi lay nuyu nuyu inspecteur maa ngi nuyu waa Sénégal. sant leen gërëm leen. sànq maa ngi dégg El Hadj Assane di ko wax Sénégal gi yépp Euh, diko diko tislu mu di professeur Massamba Gueye mm-hmm. docteur mm-hmm. nga euh, soxnam dafa gennat na mm-hmm. diko diko massawo bu baakha baax naka noné kep sa tiam euh, momit yaayam yaayam genn aduna ño ñu diko ko jale diko massaw bu baakha baax di bok ak mom tiswi wi euh di ñaan Sénégal gi yalla may ñu wër ñu neer bi li nga xamantene ji mi ngi fi ñuy dakk mu baña dem yalla fi jóge. miner corona bi dal yalla buñ ñu endo ak mom miner ñaari ko mo kooma mun ci and ko ak corona mun ta ànd. koor ak corona ñaari kooma mun ta ànd. yàlla bu ko yalla yàlla day géré benn bañ ak benn bi rek. yàlla leena koor gi na géré corona bi. yalla bu ko fi korite bi fek <laughs> amin amin ban jaar na la. ci kaw ñu bàyyi lu ñuy tere su bàyyi lu ñuy tere dina fi tabaskee ban wax day. corona gi limi bañ su fekke wa rew mi ba wuñu ko dinañ fi tabaskee. de doy ban. ah mais deug neexul. dañ da ban del ñaan jamm ban. ah déedéet bay li so bay li mu dem nga lank. waaw yow nuyo wa sax commencé ah mais deug lay wax. ñu lay jar ban. waaw. ma ngi lay bëgg bu baax sama waji ji namoon naa la. mu ngi dox ma la raw fu. bay ne sa wa jaay na ngeen defay sant yalla sant li ngeen ma defloo tey moom du du du lu mën a wéy moom. ah góorgóorlu ci. ndax li auditeur yi bëgg. déet auditeurs yi nag <laughs> dañoo bu def ne ci ñoo xam dañoo bëgg lu yomb <laughs> eh, euh, ñooñ. say waay lañ dañ la bëgg de. day samay waaye non non. kaas rek de du leen bëgg nag ba ba ba ba <laughs> liggéey ba reportage ba six heures du matin ñëw fi def nar a def quinze minutes war a nelaw sa bët yaa ngi nii ku xool xam ne nelaw kan man mii ku ma xool xam ne nelawoo ma. ah auditeurs yi dañuy nelaw ba ni saay. lu yàq nelaw danaa ndoy lu tax ñëwul ndoy daa war a ñëw ah toog seen kaw laal. waaw toog seen kaw laal. ah non doy. waaw. <laughs> man du ko ma war a. baan xalaas bi njëkk lu mu wax. nga sol nii chiffon moo la ko defal. waaw chiffon la. musta daanu de waaye tey daanu. ah lu mu ñooñu yéeg ci cabine yi promo masi de ngay nuroo fi nekk nii ah. yow yow taxoo kenn toog këram. Ndiaye Sifo kay couleur bi ma defal jaaxal ma Sifo. Sifo de jaaykatu kii la la teg saf safal yooyu. la la xeex xeex bi li war a fës ngay xeex xeex bi fu waay toll dina seen xam ne yaa ngi xeex xeex bi waaye mel ne jaaykatu promo yooyu. non Sifo zone bi moom vraiment dafa dafa kii quoi zone na de. zone bi kay lépp mën a kii. si maa ngi fay jaar tout de suite. nekkan si foofu de la mer ko <laughs> am na yéen a xam ne man. bu ma nit ñawalee wala mu solal <laughs> njaay waa ji yërëm naa ko trop. lu ko dal. njaay waa ji dañ ko dugal ci say mbokk. maanaam dafa takk mbokkam. waaw te dañ ko cee dugal. waaw tant doomu tàntam la takk. tantam toog yaayam toog papam toog. jëkkër tàntam toog ñun ko diw mii leen lay may ñu déw ñu laaj ko mu ne bëgg na moom ñu laaj ko ñu bëgg ñu boole leen ndekete moment boobu ndaw sa daa ëmb waa ji ñëw ndakaaru di dawal saret di liggéey di yónnee ndaw sax waa ji xamu ko woon xamu ci dara mais ndaw si mu xamoon na ko waaw bi ñu ba ci biir nag ba mu ngéntee pare la ko ndaw si ni ko yaa ngénte nga kii waaye juróo ko ah, yéen a mu ne naa ñëw de ban tegaatoogaat déglu moom benn xale bu jigéen boo xam ne man ak moom ay mbokk lañ ay doomu nay lañ sama yaay ak yaayam ñu bokk ndey ak baay. biñ koy takk dañu toog man ak moom ak suñu ñeenti parents yëpp ñu toog ñu waxtaan moom mi ni bëgg na ma man it ma d'accord ci loolu ñu maye ñu. fekk moom bi ma afaa ñu ma koy may am na gaañ bu mu noonu génneel kooku ab safóor la léegi bi dem ci biir léegi moom mu laa dem kër gaañ bi ba jëlee ci ëmb sa kenn xamu ko. te moom du ma ko jox ndax moom ma ko. ki moom la koy jox sama yaay ak sama papa ñun jàpp na ne doom ji man maa ko jur pour ñoom man maa jur doom ji doom ji man juruma ko chauffeur boobu mooy papaam dafa am benn gaañ bu mu doon génnal juru sax wax tur bi benn gaañ bu mu doon génnal fii ci koñ bi après yaayam ak baayam jël ko may ma ko ñu waxtaan bu juboo ak moom mu may ma ko waaye nag avant ñu ma ko may daa fekk mu génn ak boobu noonu yaayam ak baayam mu ñëw dox ci ko waxtaan si ak ñoom ñu may ma ko may ma ko kon xam kooku sama soxna la waaye diit bi nekk sama na soxna lépp xale bu jigéen moom bugguma gaan bi mu génneel moom la gën a bëgg trop trop ni moom danaa dem sax di seeti gaan gàlleem xam nga des fois mu dem fa yenn fa des fois mu dem fa guddee fa yenn yàgg jamono boobu nan booba affaire yi dimbakul nii booba corona bi boobu amagul loolu la wax ni yaakaar naa war naa mat ay quelques mois ci ginnaaw léegi moo xaw a yàgg xam nga te dem seeti gaan bi kër des fois mu dem fa guddee fa xam nga des fois mu dem fa yenn si fa gaan kooku la gën a bëgg ni man waaye man man man nekku mbokkam bi léegi mu demee ba ci biir may bëgg ko ba ñëpp xam ne bëgg naa ko waaye moom gel bi moom bëgguma sa ay mbokk lañ gaan bi la gën a bëgg léegi mu dem ci gaañan ba des fois mu fay yendu des mu fay guddee bi ëmbal ko yaa may ko gaañan bi ëmbalee koo gis man koo xam après demee noonu léegi man ak moom ñu daje benn xew xam nga ma fexe ba sàcc ko yaa may dégg baan bi ma ko sàccee léegi bi ëmbee bu am doom doom ji juddu yàlla def mu nekku góor doom ji man man maa ko ngénte man maa jël sama xaalis man maa ko ngénte man daaw ko man maa ko ngénte sama xaalis ngénte la parce que ñàkk naa si lu mat trois cent mille trois cent mille ñàkk naa ko ci ngénte la def naa lu ne laa yaakaar doom ji maa ko moom fekk doom ji man moom ko man baat li ma xamal ne moom ma ko moom dimi dimi yaay ji moo ma ko wax bi xew bi jàllee moo ne ma yaa ngénte doom ji waaye doom ji da ko juróo ko affaire ma trop mu ne ko fan nga teg ni juróo ko waaye nag li ma ci dugal mooy ak mbokk moom ma ci dugal ak xale bi man xam naa ne bugguma affaire daal man affaire daal ndaay man métti na ma trop nga wax naan ñitte ngi ngénte doom jum jum jum jurul da ko loolu am na da ko doom ji li ma sonn lépp di ko toppatoo di ko defal lépp da ko man doom ji man juruma ko su man xawma ne man doom bi man juróoma ko ak li ma sonn ak li ma si daj lépp bi dee ba ci bi bu doom ji màgg doom ji fi war na am saa war naa am lu mat ay ci saa bi mi ngi dox mi ngi dox mi ngi raam mi ngi def lépp ci li ma xale bi ci ngeen fa xamee ne kii juróo ko na ma diw moo ko jur loolu na metti ma trop trop trop ba sa kanamu yàlla ak li ma daj ci xale bi lépp man damaa teel a wax ne kii kat doo bàyyam ma dina la xam ne waaye def ñu bi ci biir ci la ëpp boobu nag muy yebal ay boo ci koñ bi bu gisee xale bi jël yóbbu sëy bi daal sëy mbokk la moom sëy bi moom fi mu doonee nii fi dund man ak moom tas ko sax duma ko gënal ndax li mu dunde ak man kenn xamu ko man xalu jigéen bugguma man dem naa boo xam ni bugguma gis ma a gis mbàqam yi la yemale man xam naa loolu sama yaay ak sama papa ñoo ma si dugal sax xam naa ni man su ma ko bàyyee ñu mel ñu bàyyi ma ci su ma bàyyee xale bi ñoom ñu mere ma mu jàpp nga ni sa doom la ma ne ko waaw mu du sa doom fekkee jàpp nga ni sa doom la nax nga sa bopp sa nday ak sa baay mi naan sa doom la dal la nax doom ji moomoo ko doom bi diw moo ko moom lépp loos def ñàkk ngoo doom bi du sa doom xam nga ne bëgguma la ba seq yow ay doom wax ci ji ne mu koy wax sa doom ji man ban lu ne def naa ko ci lu ne lu ne lépp maa koy def ma jënd ordonnance yi xale bi ma daa jënd yërëm dafa ma am déggee maa ngi xóotil xóotil yaay def lépp luy def su jigéen mun naa ko def ci moom tey mu dégg affaire bi demee ni ci man xale bi taxawoo ma nii xam naa loo métti trop trop trop sax. xam nañ ko sama yaay xam na ko bu baax xam na ni man xale bi bugguma sama papa tamit xam na ne xale bi bugguma su yëg mbokk lañ ko defoon mën naa jël ma maay ko amul problème bu léegi mu bañ maa dalati ginnaaw su yëg mbokk la mbokk yi tax ma duggoon ci waaye lépp rëcc naa ko say waajur ñu a tooñ. day na war de ndengeñ ndengeñ na leen de doom jo jurul de mo ngeen gënté ba nopi def ci lepp utul tour nu la koy wax photo waaw sa jabar ji nga tak di sa mbokk di sa deret nan la juroo ko ban ak ah, la faute xana la fi neena la hmm moytul dom ju duñu naan mamam lay nirul hmm dom day nuru ndayam wala baye hmm. ay mamam la jël wala kiñ ki ñu sama yaay lay nuro <laughs> waaw wala wala wala yooyu dafa dalutum xel. waaw doom day nuru ndey wala bay waaw jeex na léegi nag ci xeeti doom daf ci am ño xamante ji. Mm-hmm. da nga leen di bëgg a jur. Mm-hmm. am yoo xamante ji yàllaa leen moo la leen di séddee. kii mm-hmm. xale bi yàllaa ko ko sédé na ci naka. moo feccali ñu bal ma ci baat bi. <laughs> Ah, mais mais fekk na ko nag ci buum. waaw d' accord peu importe. kan la fekkoon ci buum. dedet wa non bu dee ci côté yooyu d' accord naa mais dama ne. moom bañ ko koy may. dafa ëmb dafa ëmb. waaw waaye moom ci xale bi bi muy juddu mi ngi fekk femme bi muy seeg waa ji. waaw kon kooku noonu. c'est-à-dire yàllaa ko ko dénk. noonu la ko mën a waxee. mais sëy bi wérul de. sëy bi moom wérul. mais loolu moom seen ku lijjanti yi leneen mais xale bi daal. kon doom ji doomu waa ji doomu waa ji. kon tey na gërëm femme bi ba mu amee honnêteté wu. wax ko ci circonstance yii. mënu ko mu ne ko kii juróo ko. mënoon naa bàyyi sax ba booy bi màgg. léegi nu muy def mu koy soog a wax ah xanaa bàyyi ko. Ah. ok am sama lim te ñew hmm ah non koy def da koy ba sey bo wérul et que waji sax dafa men fami da bugut non bi bugut man kay fo ñom ñaan ñep gëwuma ni amna ku ci bëgg waaw waji bëggoon na sincère na mais xam nga ginaaw dem nga bu ñu sa ki mom vraiment waji mom neena xew lañ demone ma sacc ko yobbu waaw waaw lolo am ci dekk yi do amé sa jabar ki yogoko jëlugoko da ngay sacc crime sur crime lolou non lañ ko tuddé da sacc sama jabar loolu noonu ci dëkk suñu dëkk yi noonu lañ koy. tuddee xëy na bu ko jaaroon ca yoon. non loolu moom mënta ne. jaar ci yoon suñu la mayee jabar te ah. muuroguñ ko ah. mën ngaa jëw këram sàcc ko ci ngeen ànd ak say ah, complicité ak say xarit ak moom ak ay xaritam nga jël ko yóbbu waaw eh, ndogu deloo ko Mm-hmm. loolu c'est c'est valable ah sa jabar la. léegi nag erreur baa ngi a nag. ah <laughs> ma ne kon ndongoon yëfu jàmm da ngay gone rek <laughs> ñu jàll ci leneen. avant jàll jàll erreur baa ngi nii léegi daal man. li eh, may wax waa ji mooy. waaw da nga maa namoon Ah, man loolu du man rek di <laughs> max samay morom wuy loolu benn ngi max samay morom dara oui ma ana ñi ko bëgg ñoo ngi nii ana ñi ko bëgg ñun ñoo ngi nii ana ñi ko bëgg la ñoo ngi nii toog jaay doo rek ana ñi ko bëgg ñoo ngi nii ana ñi bëgg ndoo non boo bëgge ma tondu bu ko riij mais <laughs> ana ñi ko bëgg <laughs> benn ngi ni ana ñi ko bëgg mais rek ci ban wa do bay mo wax waji waa ji waxal ak mom ñu ngi jégalu koor leen ñu yàq seen koor yi moom waa ji. waaw yàlla xam ne sëy bi mënut a dem. Mm-hmm. mu delloo doomu jàmbur. Mm-hmm. delloo jabaram. Mm-hmm. jabar jiit comme am na fitoo taxaw ne ko juróo kii. Mm. bu mu ci guddal jël. na ah, jël doomam téye. Mhm. yamale fi sëy bi. Mhm. bu fekkee ki jur doom ji nangu na. Mhm. ah mu àndandoo moom yar ko. bu nanguwul it mu téyelu ko boppam rek. téyel doomam. sinon bu ñu fi jéemee nëpp nëppal yëf yi. lu ñuy gën di màgg problème di gën di am. day gën a ñaaw. déedéet su parents yi tasul sëy bii. ka jur doom jee dina juraat beneen. ah beneen erreur a ngi noonu. Hmm, dafa ñaaw ba noppi la yi wax de. ñaaw na ba noppi la ñuy wax de. ñaaw na ba noppi hmm, ñaaw na ba noppi moom dara waratu cee rafet. Hmm. Lamine Diop luy problème am. Ndiaye Lamine Diop mi kaso la nekkoon. Hmm, yow nag gis na may moytuwul xam nga baat lu fi indi tey. Hmm. nit ku corona. ah indi waaw dañuy waaw. moom da hmm, dafa indi tey. waaw ah, corona suñ ci jàppuloon de da koy teg. ma ngi ca lal ba tëdd de. corona interviewé naa ko de. déet bàyyil ba mu wér wala ba xam ba ñu. normalement dina ne moom nee na dina génne tey wala suba. waaw d' accord léegi dañ ko. yaa ko interviewé. waaw nam ko daree fa mu jaar ak lépp. yaa dem fekk ko ba. ci kaw lal bi mu tëdd loolu mënta Hmm. loolu doo ko doo leen jege. nan nga ko interviewé. man xam nga sama numéro téléphone bi Sénégal gépp ko am. am nañ ko dëgg la. waaw ah, moom nag te woppam moo ma woo ba ma vérifié que ni lii lu wér la ma koy doog a interviewé. ayca ayca nañ bàyyi ba xam fu muy mujjee. Hmm. waaw ba mu fi ndax gis nga eh, li Assane Gueye di wax El Hadj Sànq. Ah. da ciy baax ñuy wan nit ñi ñi mu dal. Hmm. la ñuy daj. ngir ñu mën koo moytu. expliqué na lépp. kon baax na. Ndiaye kii Lamine dafa nekkoon kaso ak beneen moromam. waaw. mais ci grâce bi moom ñu gracier ko bàyyi fa beneen morom bi. ku ñu gracier Lamine Diop. Lamine Diop Lamine Diop ndeketee mii moom jar jarta gracier. njóobeen yi kay moom ñu ci am njëriñ bëriwul. voilà kii nag Lamine Diop mii nag dafa xaw ma ku tudd Seydou la fa nekkaloon. Hmm. benn waaye daal la fa nekkaloon Lamine bi mu génnee jël numéro frère xaritam boobu euh, frère xaritam bi nekk ci biti. Hmm. woo ko ni ko sa frère bi ne ci kaso bi ñoo nekkoon vraiment mi ngi lay sant la gërëm nee na moo woo la pour ku ñu jéem a xool naka la ñuy def pour libérer ko. Hmm. wutal ko grâce léegi nag man ginnaaw man damaa nar a nekk candidat maire bu Sébikotane am naa ay relation yooyu léegi da nga may toogal foofu rek naa lay woo nga may teg ci kotook yooyu lu ma soxla woo la seen waa kër yónnee ma ko ma lay jënti sorteem hmm. mais fa muy mu fa mujj hmm. yaay fa mujj xam naa suba rek lay doon dina fi xaj dañ ko kii rek jox ñu déglu benn mag bu tudd Seydou dafa nekkaloo benn waaye bu tudd Lamine Diop ci benn chambre prison Rebeuss léegi nag yàlla dogal na lamin moo ko njëkk a génn dama bi ma génnee décembre ci la ñu woo téléphone mu xamal ñu Seydou moo ko jox sama numéro xarit lañ ñoo ma daan partagé lépp léegi mu naan ci prison bi lañu xamante après mu naan moom dafa bëgg a présenté candidature am élection municipale mairie mu naan am na kër Médina am na kër Sébikotane waxtaan ngeen lu bëri après en en instant yi ma maa ngi woon Fuuta janvier bi mu ñëwee janvier Dakar ci laa woo téléphone mu naan foo toll après ñu daan di waxtaan yu bëri ñu waxtaan yu bëri sax après nag mu naa ma léegi nag daay bàyyi ba février nga woo ma après ma woo ko février nag sama xarit la dinaa ko dama bëggu jàppale te yàlla tax après mu naa nag léegi nag comme def na moitié penam bind naa lettre déposé naa ko fale pour ñu mun ko bàyyi pour def liberté conditionnelle après nag fin mars tombé ça avec épi euh, euh, euh, tombé ça ci épidémie bi ensuite en fekk Macky dafa dafa dafa gracifié woon deux mille après ci la mo wone téléphone mo mo wone téléphone mu naan ma Seydou nak bokku ci ci ñu war ci ñu ñu war a gracier nak la ci laajte naa wala waa pénitentiaire après ñu naan ma noonu bokku ci liste bi dañ ko transféré woon fale dañ ko transféré sébi coutane prison bu bees lañ ko transféré légui après Lamine ci ci Lamine Lamine woo téléphone mu naan moom nag am xam xam na directeur directeur pénitentiaire Sébikotane bi mu naan moom Thiam la tudd après mu naan xam nga Antoine daal di daal di ñoom ñëpp ñi fa nekk ñaan xam na leen maanaam Antoine ak Thiam léegi nag mu naan directeur boobu nee na bu ñu ko indee cent bu ñu indee cent mille francs dañu ko digal ci liste bi pour ñu mun a génn dañ ko gratifié kon def na moitié peram am na am na gratuite boobu après mu naan instant yi moom amuma xaalis naa non non. yow kay cinquante mille rek ngay indil man ma indi euh, cinquante mille franc après ma am d' accord. fekk man euh, amoon naa dix sept mille dama euh, dencoon naa dix sept mille cinq cent franc ci laa ko envoyé dix sept mille ma envoyé dix sept mille cinq cent franc fekk sama papa dafa ma envoyé dix mille franc après ma boole ci dix sept mille cinq cent yi mu nekk vingt sept mille cinq cent. naa waa kër gi comme sama papa ak sama yaay dañu yàkkamti pour gis seen doom après ma daal di xamal ne ab benn Lamine Diop euh, dafa bëgg dimbali pour Seydou génn léegi après ci la lan demee ci lañ ma ci sama yaay envoyé vingt six mille francs bi nga envoyé vingt six mille francs ma envoyé ko vingt six mille francs yi mu naan ma léegi dina dina dina ko envoyé caam. xaw ma téléphone naan lépp mën na instant yi ñoo ngi koy ñoo ngi ñoo ngi koy dugal ci liste bi. mu naan léegi tout est fait tout a été fait ba ba kii ba merce yi ñëw bu ñu defee test test ba xam am nañ coronavirus wala déet après ñu mun ko libéré maa naan ko waaw après nag léegi nag après le sax mi surlendemain mu woo mu naan am na benn chauffeur mooy chauffeur bu bu ñu waree jëlee Sébikotane indi leen Fali indi leen euh, Dakar chauffeur boobu ne nag xam na xam na cas nu mu demee nee na bu ko buñ ko joxul dara day dénoncé mu naan ko ah bon mu naan waaw léegi nag il faut il faut il faut ñu wut il faut ñu jox ko dara mu naan ko non amul kon bu fekkee loolu amul problème après mu daal di ko envoyé vingt mille francs ñu ko envoyé vingt mille francs après mu naan léegi nag tout à fait après da ngay da ngay mottali da ngay mottali li ci des après mu envoyé encore quinze mille francs bu ñu ma envoyé quinze mille francs après mu naan waaw amul problème léegi man na léegi le surlendemain bi après mu naan ci ci guddi boobu la ñu war a ñëw bu ñu ñëwee après di ñoom dinañu woo téléphone waaw moom moo tëtt leen adresse bi yëpp sama adresse fu mu nekk yëpp après mu naan amul problème léegi nag le surlendemain après waaw mu naan def nañ test ñoom amuñu coronavirus <clears throat> amuñ dara waaye nag ñu defal say di test ba xam am na wala amul sinon rek lépp moom la Lamine Diop mi ngi ci pexe ci ni mu waxee. waaw wutal grâce. Seydou waaw wutal grâce léegi wutal na ko grâce léegi defe naa dañuy dem hôpital xool ba xam amuñu corona wala amuñu kii. ci ay waxam ci ay waxam. waaye bañ demee ba xool ko ne nañ ko Seydou nee na ne leen Seydou dafa amee tuberculose dañ koy faj. ci biir waxi nee na faj nañ ko. su fi temps bi jotee ñu jox ko ou ñëw. est-ce doo ko téye ba suba. voilà nit ñi daal nañ xam ne mhm. papay Seydou mi ngi doon yónnee xaalis yaay Seydou mi ngi doon yónnee xaalis waa ji lañ ko doon jox waa ji lañ ko doon jox waa ji mook Seydou ñoo nekk ndawoon mm, prison voilà nee na day jéem a sàkki pexe daal pour neexal garde yeeg xarit ak ñi war a def grâce pour ñu libérer Seydou waaye li ci gën a yéeme Njaay hmm. famille yaakaar na ni Seydou ngi ci biti nekk hôpital di faju pour wala ñibbisi dañoo xëy suba rek Seydou woo woo papaam ak yaayam ni leen yónnee leen ma xaalis ñun ah, yow ñu ngi yónnee sa waa ji xaalis moom ko ban waay ñu ko sa waa ji ñuy lijjantil grâce pour nga libéré yaa ngi hôpital pour pour ñu lay test mun leen maa ngi nii ci prison bi <laughs> dama sonn. non ban la il ñu yeggale ko suba xam nga lu tax nit ñi xam ne grâce xaalis du ko lijjanti. ba bokk mm-hmm. xaalis waru mm-hmm. ko lijjanti. xaalis bi topp mooy bul def koo gis def ko mbokk. Mm-hmm. te lu la nit di wax demal ba ca suur suba. soo ko bëggee gëm nañu bàyyi ba suba ñu eggale ko mais. bu ngeen ma ko mayee. Hmm. dafa am gars yi amalgam bu ñuy def gis nga ndimbal lii nii nga xam ne état bi da koo bëgg a jox ñi seen loxo jotul seen ginnaaw maanaam sama classe gi ñi néew doole. Hmm. daf ci am lu ci desee leer. Hmm. ay nit xam naa war nañ la interpeller yu nekk ci dëkki kaw yi. dañ lay woone la nee nañu ñi am bourse familiale duñ ci bokk. am ñoo xam ne dañ leen leen ne ñi am bourse familiale lañu koy jox. Mhm. donc nag ñoom ñi nga xam ne ñoo ko séq pour amalgame di bañaam mhm. nañu leen wax yan nit lañu koy jox mhm. man mën naa cee tontu waaye ca basi ginnaaw nee nga fa laa bokk <laughs> ñi am bourse familiale ci lañ bokk ah. ak ñi ko amul voilà léegi ñaar yépp ci lañ bokk bok ni bokk ci bok familiale nga bokk bokkoo ci dañ lay nax xam nga li xamoon naa ko dama bëggoon voix officielle mais comme junj nga ko nañ ko yeggalee voilà maanaam nga am ko nga ñàkk ko am ñoom seetuñu loolu voilà ñi ñu koy jox dañ leen a ci yenn critère lañ leen tànne xëy xam nañu ko mhm. mais pas dañ lay jox parce que da nga am bourse familiale mhm. wala duñ la jox ndax da ko am dedet, mhm. loolu moom na ko nit ñi na ko nit ñi wax ñu mu leer en tout cas boobu ba léegi nit ñaa ngi ci bëgg ay ñi am bourse familiale ñëpp daanaka ci lañ bokk ñun transsocial yi nag. ñun c'est que ceeb bi nga nga njaay. Ah, ceeb bi dama koy wax ñëpp dégg ko. mënoo par exemple njaay mënoo am sa papa. sa papa am juróomi doom yu la mën a jëndalub ceeb ñooñu bàyyi ceeb bi da ko war a bàyyi. ñi mënta jënd ceeb. dëgg am na ay famille yu nekk ci en région yi. paa ya ñuy jox ceeb bi. paa boobu am na ñaari doom yu ne Ndakaaru wala ñetti doom yu ne Ndakaaru yu ko mën a jëndal. cinquante ceeb. waaw loolu d'accord ñooñu bokkuñu ci. léeg-léeg aussi yuuxu jibe fu ñu ko foogul da gis nit yaakaare ko ceeb fekk moom su lekkee ceeb rek kër jàmbur la ko lekk. mais daal Ndiaye man war na c'est que paa bi ñuy jox ceeb bi. Mhm. moo war a honnête. par exemple man mën naa ko euh, kii ci man man sax ku dem pire jox ibrabaan ceeb. tooñ nga ñu ñun ñun ñun ay doom parce que non damay tooñ nga ñu ñun ay doom parce que ñun Ibrahima am na assez de gos yu ko mën a jëndal ay ceeb macha allah macha allah mhm. côté boobu laay waxee xam naa li nga ko baax côté boobu laay waxee voilà léegi nag loolu nag yow mi ñuy jox ceeb bi yow yaa war a xam ne ah man ka samay doom ñi ngi may toppatoo ah, mooy honnêteté bi ngay wax rek voilà citoyenneté bi voilà ñu jox la loo xam ne am nga ko uh-huh. jaruta jël bàyyil ñu jox ko ñu ko amul voilà c'est ça bu subaak jàmm yàlla na fi mbas mi jóg